Mouhamed di nuyu mboolem Sénégal du ñuy seetaan ñëpp. jërëjëf Pape Samba Pape Mouhamed Ndiaye yow itam nga doon wóolale Serigne Modou ñan ku nekk xamoon la ak moom ñu bàyyi la nga nuyoo. waaw Ousmane ñu ngi nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan fii ci RDV di xamal ne nit ñi jotaay bi ñu fi tax a comme li nga wax la rek sëñ Modou sëñ Modou ñëpp la sëñ Modou gore na ba dem te nit ki yaakaar naa boo dee ànd ak moom mu gore ba dem. boo boo fi desee war ngaa wax ci moom lépp loo xamante ne loo xam la ci moom ci lu baax comme ni nga ko waxee tamit ba léegi si jour sarax ba ñëpp ñëw nañ ñëpp itam ñu ngi koy rafetlu ñëpp ñaanal nañ ko ci yaakaar naa ñaan yooyu yëpp bu ko fekkee yaakaar naa ne sëñ Modou àjjana lay lay yeewoo incha allah ci kattan yàlla jërëjëf Mohamed te it groupe Excaf bi nga xam ne sëñ Modou Niang moom la euh, signé contrat ci saison bi nga xam ne jotoon nañ koo tàmbali yàlla def li gën def délégation bu am solo ki nga xam ne moo ko yónnee muy Ismaïla Diagne bi nga xam ne mooy directeur RDV yabal ki nga xam ne mooy euh, chef de production muy Mamadou Diop mu ànd ak Mouhamed Ndiaye nii ànd ak Bibi ànd ak Jean Pouy tubaarkalla macha allah ñoom ñu def délégation bu am solo ñëw jaale si. ñi nga xam ne tey jii ñu ngi jàkkaarloog seen télévision dégg nañ kàddu yu yaru yi. ci biir kàddu yi wax na ci jaar-jaaram ci biir kàddu yi wax gërëm na ñi nga xam ne ñoom la daan àndal ñu koy jàppale ci biir kàddu yi même gërëm na sponsor yi Mohamed bi nga dégloo ki nga xam ne mooy sëriñ Mori Niang tey ji ak euh, témoin ak li mu wax lan nga yëg tey waaw li ma si yëg rek lu dul am si xel mu dal parce que nit weesuwul di liggéey yow reconnaître li ngay def ci moom bu toogee nekk ci àdduna bi di sant bu baax ñi nga xamante ne ñoom lay liggéeyandool loolu mbégte la parce que ñooñu tamit dañu xam ne bu kii ku gore la parce que mënoon na di def def lu muy def te du leen sant du leen gërëm parce que nit ki booy liggéey moom santoo ko gërëm ko ça veut dire que seen ànd neexul da ngeen di maslaa rek mais su demee ba nga xamante boo xoolee élément bi ñu jël noonu ak moment bu muy gaañu bu fekkee def na weer wala ay 20 jours ci la yem toog sant leen ñoom ñëpp gërëm leen kay xëy na boobu ñàkkul am moom lu mu yëg ñàkkul am lu mu yëg le fait que mu leen di remercier ci liggéey bi muy liggéey ak ñoom toog tamit wax jafe-jafe yi am ci làmb ak yi nga xamante ne nit ki bu ko defee bu tëddee mën a nelaw sëñ Modou kenn daaw ko dugal ci loo xamante ne mënu ko danaan def loo mën wax loo mën boo tëddee nelaw ci loolu gor kese moo ko mën parce que nit ki boo yenoo loo àttanul di nga sonal sa bopp sonal say mbokk te moom boo dee xool bëggul sonal kenn lépp lu muy def da koy mën def ko booy liggéey moom tamit la mu mën la lay wax nga ànd ak ca moom ci loolu doo ko imposer lu mu bëgg-bëgg du tax mu dugg ci loo xamante ne euh, da ciy jëlee loo xam du ko neex man ci loolu dama ko ci naw yàgg naa dem këram toog di waxtaan ak moom depuis ma nekk Warpa avant maa ñëw RDV depuis ay 2008 euh, la maa moom ñi nga ànd ci liggéey bu rafet te lépp loo xamante ne séq dañ ko séq dañ ko si jàmm ak salaam donc duñ def lu dul di ko sant bu baax ñaanal ko ñaanal ko bu baax a baax a baax cat bañ kaa jiitu ci bàmmeelam ñaanal ko yàlla jéggal ko yàlla xaare ko àjjana wane la ko ak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahuma amin ñu profité rek ci diggante bi euh, jaale famille am yëpp ko dalee ci mot euh, ki nga xam ne mooy mon ñang Paris d'or nga xool taxawaay bu rafet bi nga xam ne taxaw na ko euh, ak ki nga xam ne mooy njagañang nga xam ne mooy njagañang mu mag mi di turandoo njagañang ak euh, fàllu ñoom buugéey tubaarkàlla macha allah ay doomam ñoom xaadim njagañang mu ndaw tubaarkàlla macha allah mbay moor xale yëpp rek tubaarkàlla njaboot gi yëpp ñu ngi leen koy jaal bu baax a baax a baax mu jeex mm-hmm. mm-hmm. Mm-hmm. te xam na boobu jël naa décision pour def dara. mais ba ma woowee wax ma la may wax. ma xool moom mat na ma kilifa te mi ngi toog fa mu toog waxul deful dara. parce que loolay wane kenn mer. kenn ma jàppale si loolu. mu doon loo xamante ne yëfu góor la daal. te góor tamit weesuwul. même làmb bu muy def nii sax. dafa ànd ak làmb ci ngor. ci ngor boo seet loolu li tax may wax loolu mooy. ba yow jour bi nga tëgg làmb sax da si nga génn àdduna parce que pour wan ne rek àdduna dara du hasard bëgg bu mu bëgg làmb ak fa mu teg làmb ak fa mu yóbbu làmb ba troisième journée bu mu tëgg làmb mm-hmm. si jour boobu nit ñi waroon xëy pour dem stade mm-hmm. pour tëgg làmb ji mm-hmm. moom mu xëy si dëddu dëddu pour wane ne yàlla am na toujours lu muy jàngale foofu daal jàngale foofu am na lu yàlla wane euh, ñu gërëm Papa Ndiaye ay dumbu waaye di gërëm it ay jigéenam muy njaxat fay mm-hmm. ak Ayda Ndiaye Ayda Ndiaye nga xam ne ñoom wax dëgg yàlla taxaw nañ ci taxawaay bu rafet lool depuis lamb banlieue waaye ak démba si mm-hmm. euh, wax dëgg yàlla taxaw nañ ci taxawaay bu rafet wala nañ kóllëre gi nga xam ne àndoon nañ ko àndoon nañ ko ak ki nga xam ne mooy Serigne Modou Niang ay soxna kenn du yow kenn kenn du yow Ousmane mm. parce que fi nga teg sëñ Modou bëgg de manqué argent man ko usman bu yoroon télé vingt quatre heures sur vingt quatre sëñ Modou la fa invité waaw benn promoteur mu ñëw moom na sëñ Modou ñëw toog mu jàkkaarloo moom même bu ko waxul dara sax na koy xool Ousmane Diouf man ko moo bëgg sëñ Modou bëgg boo xamante ne boo ko ci xoolee sax da ko ciy mere mhm. fu mu teg sëñ Modou gisuma kenn kenn koo xamante ne yaa ngi liggéey ci télé ku fa teg sëñ Modou gis nga Ousmane Diouf. Mhm. cat sax da ko teel a mhm. mais Ousmane Diouf mu daan toog ak ndem si yàlla si Alaaji Mbasa ab sow. Mhm. moom it dafa contribuer ci Mouniang production comme ay ñoom Paala Diop ak. consort googu ak Mbay Fall. ak Mbay Fall léegi Mbay léegi ci koo xam ni. sëñ Modou daf ko daan gërëm. ma di ko dégg. Paa Yéri Jaxate. Paa Yéri Jaxate. ñooñu Paala ak Boson. Boson moom moo ko sëñ Modou. Pape Diop Boson moom moom wax moom leneen la mais Paala Diop. Mm-hmm. dafa nekk nit koo xam ne de près et de loin. Mm-hmm. da doon def liggéey bu extraordinaire ci Mouniang production. Mm-hmm. rawatina ñoom Youssou. ñoom Jési Adama Jési Diop boo yooyu boo leen xoolee keroog. ak tam Birame Seye booy Ziza. ak Ziza ak Ziza ak Ziza. Ziza vraiment gis naa taxawaayam Ziza taxawaayam te. keroog dafa mel ni moo yenu mbëru piki bi wallaay ndeysaan moom sëñ Mor moom xaw ma ko pertul mais sëñ Mor sëñ Mor moom hmm? ak non man ah. munoo affaire bi da ngay toll foo xam ne xam nga sànq kii mi ngi évoqué affaire sponsor hmm. est-ce xam nga sëñ Modou bu daan dugg ci stade la première chose affaire faire xam nga mooy lan hmm. xool ndax si les banderoles sont bien alignées ñaareel bi est-ce que fomp na ñeen ba mu set est amul bu dënk même cumbukaay yi soo duggee puus xam nga mbër day yëg rek day firi sama cumbukaay même soo duggee dem toog ci ginnaaw sponsor bi nga lem ko te bind bi eggul day naan raas day jël téléphone am Pape Samb xool ne raas na dem fële euh, drapeau nangam na mu taxawee baaxul bu toogee këram def RDV en direct lamb ji démarré mm-hmm. bu ñu balee moom sponsor yi lay xool ndax amul bu naaw def nii wala bu ñu takk nangam nangam loolu la gën a respecté ci liggéey bi parce que je me am na solo yi ñu def démb jóg waaw su naan dem hmm. branding ba pare damay jël photo hmm. envoyé ko mu daal ni la bii def ko à droite def ko à gauche def ko nangam hmm. noonu pour te ni ko fonke moo tax sponsor yi joxoon ko cër lool joxoon ko cër xam naa ne dese ci waxtu bariwul parce que maa ngi profité aussi di jaale ay soxnaam ku ci mel ne Kange Tall ndax moom dafa yaatal kër gi yaatal ñu ñun ñëpp nag dëgg la ndax moom mooy aawu sëñ du Niang mhm. ak ki nga xam ne mooy Daba Gueye mhm. ak ki nga xam mooy Dial Silla ak Fatal mhm. ñu ngi leen di jaal bu baax a baax a baax seen borom kër muy Serigne Modou Niang di ko jaal aussi ki nga xam ne mooy mbay Niang lépp loo wax mu ne Mbaye Niang ngi sama kilifa Mbaye Niang ñu ngi ko koy jaal di ko ñaanal moom yàlla may ko wér may ko gudd fan di ko jaal aussi ki nga xam ne mooy Njaga mu mag ak Njaga mu ndaw ak ki nga xam ne mooy ñoom fàllu njabootam gi yépp ma jël ko teg ko ci loxo njagañan njagañang buugéey moom dafay sama xarit buugéey frère u sëñ Modou la mais day sama xarit moom ñu ko koy jaal bu baax di ko jaal nag Sénégal yëpp fi mu nekk nag temps bi jeex na mhm. benn minute moo ñu moo ñu dese bo ci benn minute boobu nag rek ñu mën cee tàggatoo rek. <laughs> waaw waaw bon duñ def lu sant bu baax. Mhm. gërëm ñëpp bu baax a baax di remercier samay bokk samay frair samay sœurs. Mhm. samay soxna Awa mhm. Sow Mami Diagne ak sama njaboot ñëpp. ak waa kër gi ñëpp ñu nga xamante ne ñu ngi bokk di liggéey ak ñoom. Euh, Pape Ndiaye. Euh, waaw man li may man li may tàggatoo rek. mooy damay gërëm. Moor di jarbaatu sëñ Mourou. Mm-hmm. ak Serigne Gueye. Mm-hmm. di wax ni aussi la famille de Mouniang Pro euh, de Serigne Mouniang ah. gis nañu ni ñun ni ñu joxe cër ñun ay àndandoo. Mm-hmm. parce que amul dara dara lu xewoon ci dëj bi. loo xam ne jël nañ ko décision. dem dugg seen biir néeg jénne teg ko. lu ñu def balaa ñu ko def dañuy woon nañu kat ah nii ak nii. ñu leen ah sëñ Modou nii la ko daan defee te yi bu amande nii la bëgg nii la bëgg. ñu jox ñu cër boobu. kon soxnaa mi ak dooma mi ak rakk mi. ñëpp vraiment ñu ngi leen di gërëm di leen sant leen wax ni yëg nañu te gis nañu cër bu ñu jox ci njabootu sëñ Modou kon di ñaanal aussi sama yaay Mariama Koli suñu borom may ko gudd fan ak sama papa Abdou Aziz Samb ak ah. euh, soxna yeeg xale yeeg njaboot gi ñëpp suñu borom defal ñëpp jàmm may leen sutura te bàyyi ñu ba ci kanam amiin amiin di gërëm ku si ki nga xam ne moom mooma solal muy Kumba Fay Kumba Fay mu Magor Jaañ Magor Jaañ bu Malika Kumba Fay soxnaam maa ngi ko bu baax di ko ñaanal yàlla bu baax diggante mu borom këram waaye di gën bu baax tamit Serigne Dia bi nga xam ne moom moo ko ñëw euh, muy complexe euh, kër Serigne Fallou Mbacke nekk Cité La Rochette euh, di gërëm yéen yi nga xam ne yéen a ngi jàkkaarloo ñu lu ñu seetaan di gërëm nag bu baax ci réalisation bi bii bi ñu ngi lay gërëm ak ñoom noxo adji di gërëm bu baax ñoom insa ci suuf tubaarkàlla champuy ak équipe bi yëpp ñu ngi lay gërëm di gërëm nag suñu directeur PDG muy Ismaïla Diagne euh, ñu ngi koy gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla may ko gudd fan ak wér di gërëm Mamadou Diop chef de production bi Mohamed Ndiaye yow tam ñu ngi lay ñaanal yàlla bu baax gars yi nag nee nañ nomm nañ xam sa mbër euh, di nuyu gërëm Pape Samba di gërëm staff Serigne Mourou yëpp njabootug làmb ke kaw ba ci suuf ñi ngi gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm dina jox rendez-vous ci beneen émission RDV alhamdulilah